ba do dem si ni ko wax ka li serigne bi wax. ko solo conséquences Lan mooy conséquences yi. boo ko defee ni ma la ko waxee mu dund takk la mbaa est-ce ma wax ko pour lan. parce que sa waay la. non waay waayu lan man sama intérêt lay gérer même moom su doon moom intérêt am lay gérer donc nag nañ fair play rek léegi nag sama part dafa am lu muy jar dàqal mu ñëw. loolu duñu boole mais après il faut nga iri ko sama kër ma def ko si lekk bi mu lekk ko ma am li ma bëgg. bi appartement bi. comme si que dang surprise su ko nga mën ci def li def ñu ñew mais tang na de. torop. ndox. rapidement Come lamentar mum again. Mais Abi, lu tax tàmmoo génn am handicap waru tax nga bañ a génn. réew mi boolewul ñu ci dara fan nga mës a gis kuy tabax Sénégal tabax yoon yoo xamante ne nii handicapé bi mën kan na cee jaar ak chaise am nga mës restaurant ne am na place pour handicapé bi ci biir kër yi boo nekkee handicapé dañ lay nëbb tey da ngay gis nit mu am doom wala mu am yaay mu doon handicapé bu koy nëbb ñii di tiitaroo seeni yaay ñii di tiitaroo seeni mag ñii di tiitaroo seeni doom yow boo nekkee handicapé kenn du la tiitaroo doom bi nga jur sax day rus a taxaw ne kii nii mooy sama yaay sénégalais yi daal ci lenn rek lañ ñu gis mooy ñu taxaw ci mbedd yi di yalwaan ñu ñuy sarax mu mel yow dafa jërëjëf dom sama dom sama dom malik ma jox du faux billet du faux billet te saraxu ma ko dama la may jërëjëf jërëjëf sama dom xamna la bu baax xamna yow la kan kay sama dom ay way ay way ay way dimbali len ma sama dom la anamu ay way kay way dimbali len ma jappal len mako ay way اوكي يلا ابي ابي ايش اللي يخمن ولا نب لما بقعد نبي بخمن ولا نب xam naa ni gëmuloo ma yaa ngi fii wax nit ñi sëy leen ak handicapé boo leen sëyee ak handicapé di ngeen am xaalis wala ngeen am tur est yow tur ngay wax. abi bu dee tur rek la am naa ko abi li may sant ci yow mënuma ko sant ci benn jigéen. ma danga maa yërëm comme ni ko Souleymane Faye waykat bi waxee woon man bëgguma ku ma yërëm ndaxte yërmande dafay wàññi doole mère. abi lii lu ma ko bi nga nekkee. su ko ni ko yëgee doo am problème. jànk tu risques d'avoir des problèmes avec Nico. je prends le risque wax naa la ba tàyyi ni damay bañ ko malax ba baax na di ci mës am bés. en parlant de Nico sax. ñëw na fi. <laughs> li ma wax naan ay def maa nopp di ma doxaanaat. léegi <laughs> yow loo ko tontu. ne ko mu xaar. <laughs> nekkal foofu rek di niitu bala sama doom xam naa la bu baax xam naa yow la kan kaay. da am yaay wala doom mu nekk handicapé ñu koy nëpp ñii di tiitaroo seeni yaay ñii di tiitaroo seeni mag ñii di tiitaroo seeni doom yow boo nekkee handicapé. mais booy booy foo nekk. antenne baa fi di tego musique waxo boy boy sama boobu dafa jaxaso quoi boy mënu mo comprendre la dernière fois li xew sa digënté yak abi gis nga ya, yow dang may yab sax gis nga boo fi nekkee di yërëmaate yow su yàgg yow mi dañuy yërëm jamono yi regardez moi xool leen ma jamono jooju nag jamono yi gis leen ma man dinaa taxaw naan xool leen ma handicapé bi mooy sama jabar dans la révision de l'émission de ce matin big dédicace à Abissal sister Abi xoolal xamal nak luñ la waxul Way aussi peace and love à Oulay di cousine ci Abi Oulay ñu ngi lay nuyu bu baax di la euh di nuyu ñëpp ñu ngi doon déglu je vous retrouve demain même heure même fréquence sur Zik Love la fréquence qui parle du cœur bëgg naa lii déglu nga ni ko yow. moom laa doon déglu nii. ah man daal ni ko daal neex na xam nga ne ni ko am na sa coppati. gis nga daf maa nëb. sama jëkkër man maay préféré ndax ay produits baara musu laay toggee dañoo naturel set te baax ci wér gu yaram <laughs> sama jëkkër. man may préféré ay produit yu baax a muso lay toog dañoo naturel set te baax ci wér gu yaram. man ceeb bu jën mooy suma plat préféré. bon man la bunt jaam kuy sa baara muso. luy baara muso. baara muso mooy femme préférée. en ah, femme préférée xaar leen man. Bara Mousso mooy suma épice préférée. <laughs> Bara 100% naturel De femme et épice, yu baax. poivre tout, laaj piment lépp loo xam ne da di saf safal kon Bara <laughs> Ken du mom. Baye Alioune Mbodj gaaw ci katan. Faro rap. Nop. ak kuy ut kayit Baye Alioune Mbodj mu ngi fii ci Scat Urbam ko ñu dibiteri Korom ak Faye téléphone. 77 198 71 11 78 545 44 30 jank nak defal différence nga may xalé mi sens ndax ni ko yow ya gën xam ne dalaa rop gis nga ulle man bëgguma góor bu ma yërëm te bëgguma aussi goor bu ma nax bay ma tok ni def nank mo gën te yow lol nga gis ni ko nam na la de góor ñëpp a yem bàyyi rekk ma dem nànk-nànk. sama xol dafa fragile bàyyi ma rek ma topp jàpp sama ñaambur. Ah, comme que nu nga ko gisee baax na. tout avec le temps que Mayak. Mhm. Allez Nico. Tout à l'heure, t'as notre vraiment. Ok, tu peux la jox moom ma ko jox dama la bëggoon defal surprise toggal la. waa lay togg. ceeb laa la toggal. ko s'il wax ma lan la. biir bi biir bi. biir bi lan. xam naa dina jàll waaye biir bi mooy jam. ah Nicole s'il te yow tamit bul wax loolu man rek maa la fi jox nga lekk boo waxee dafay mel ni dama si def dara. ayaa moo jam. xoolal s'il te jàppale ma ma dem chambre ba.

loolu moom soo ko waxee dama koy gëm. mais yow. Hmm? est-ce que sa sëriñ bi aay na. dangaa dof wala man ndur naa la man ku xamul kànkafóor yi kooku ndaanaan la ci biir ndaanaan yi dangay laaj. Adieu, né? Waarom begint het? Gent. We doen Gent. Dan doen Gent nak takla. Tak. Lo udah la bag. Is kan na nekk sama jabar. waaw. waaw mun na nekk. guni kau beli lagi? Oh, ya. ya, ya, kau mau patay. Lagi nak nuai edef. Nuai def. edef. Ana abu suba madam chara job. Semua ko fa fake kamu. Tengah Tanga dugil bob liye po lako. xale jigéen ñi dañoo gaaw nga nekk fi rek di niitu franchement ragal naa nga ñàkk ko. ñàkk. <sighs> suba dinaa ci xam dara. balaa ngay yéegal ay xale yu jigéen ci salle tente bi nga wax avisé ma d'abord. non mais DJ yaa ngi bëgg a bëri problème ah mais ñaar ñoon su ma leen dugalee salle tente c'est parce que son ensemble ñu ñaar ñoo ànd en plus kenn c'est ta copine l'autre là comment elle s'appelle encore. ok Khadija c'est bon. rek nga mën a def tailleur yi da nga leen di teg pression boo leen tegul pression dañ lay tardé sa ñëw te xew bi 10 jours rek si des. waaw ok c'est bon kan nga àndal sax yow. ah nu ma kenn. ok.